أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم bismillaahi rahmaani rahim mbokk yi safoo seetaan Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di fas yéene ñëw ànd ak yéen ci émission bu bees misaanul ilmi maanaam nattuwaayu xam-xam ci Ali Imran TV bu 17 jotee jàpp 18 ma fas yéene cee ànd ak soxna Kumba Sow. tey nag ñu ñëwoon ci seen émission bu yees bi ni ko seen noor waxee tubaab naan ka la balance du savoir ndaw ñi nag ñu ngi leen ci woo surtout ngeen ñëw fekk suñu fii ci Al Imran TV en direct bi ngeen di tontu ay laaj dinañ ci ànd nag suñu partenaire rapido ak ay neexal yoo xamante ni tarkaal. waaw soxna Kumba ñoo ngi lay jaajëfalaat baax a baax waa émission bi incha allah ay laaj lay doon ak ay tontu fii lay amee ci Al Imran TV laaj yi ci alquranul day dellu ci siira dana dellu it ci saqaafa bu ko defee nag kon loolu mooy émission bi képp koo xam ne bëgg nga cee ànd ak ñun rek da ngay wootee ci 88. 628. 11. 00. ñu ànd ci ak soxna Kumba Sow. ak sëñ Mor Seck Diogo. incha